ay rebelle te Macky Sall tuddee woon leen ko di leen jàpp ci façon jàppin yu ñaaw façon jàppin yu metti façon jàkk jàppin yu injuste yoo xam ne kenn mësta gis lu ni mel ci am réew fekk nit mu ubbi palaasam bay tëj nga jàpp yóbbu ci oto ne terroriste nga fekk nit muy xëy nga jàpp ne ratt ci kaso bi terroriste fekk nit mu toog ci place di jaay sol t-shirt wala maillot senegal ñu jàpp la nelakaay yow rebelle nga tëj la ci kaso bi pendant deux ans six mois huit mois ainsi de suite ku nekk ak lan la tëj ñu gis ne nag actuellement Macky Sall mi ngi leen di libéré wel wel te kenn ku ci nekk ba nga fay dugg lan la jiiñoon bu doon ci réew la boo xam ne réew bu normal la moom boo génnee ci kaso bi ci armée li nga jëm ndax daf leen a jiiñ loo xam ne lu ko gën a rëy gën koo diis ci am réew muy terroriste ak li nga xam ne mooy rebelle ak li nga xam ne maanaam mooy les forces occultes lu leen gën a doy waar crime lu ko gën a nekk crime cim réew amul Macky Sall jiiñ leen ko ba àdduna sépp rajo yeeg télévision yeeg ñëpp di leen waxtaanee internationaux foo dem ci àdduna bi ñu naan les terroristes Sénégal les forces occultes lu ne ñu wax ko ci réew mi lépp nag kii di Antoine jomm ak kii di ñenn ñi nga xam ne ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar taxaw ci télé yeeg journaux yeeg fu nekk di ko wax journaux tappalekat yi aussi ànd ak ñoom di liise di fen ak a wax li ñuy wax xam nañ xel que ne dara du ci dëgg te lépp boo gisee ñu ko doon def pour gën a yokkal kii di Ousmane Sonko ay jafe-jafe ak gën a gàkkal deru Ousmane Sonko parce que képp kuñ jàpp ne la rebelle nga dañuy bëgg na la yow rebelle gi nga doon nii maanaam Ousmane Sonko moom nga àndal te Ousmane Sonko rebelle la parce que jiñ nañ fi Ousmane Sonko moom ci boppam ne terroriste la bu ngeen fàttali ko waxoon nañ fi ne am na ay rebelle yu rëccee Casamance romb dëkk yépp ci Sénégal ba dugg biir dakaar ci niñ ko waxee di nga wax ji de te kii di antwan Diome mook fi waxoon ginnaaw bi rebelle yi duggee biir dakaar ñëw manifester ba doyal jëlaat seen bus génn dakaar delluwaat Casamance Antoine Diome moo fi waxoon loolu yëpp ngir jéem a aggraver situation réew mi ak di jéem a gëmloo àdduna bi que ñoo ñu nga xam ne ñooy terroristes yi Ousmane Sonko la ñuy jàppale moom la ñuy xeexal pour gën a yàq deru Ousmane Sonko. Macky nag fi ne dem na ba xamatul fu mu jëm dem na ba jaxasoo dem na ba jaaxle parce que kàmb gi mu doon gasal Ousmane Sonko pour daane ko ci fa mu taxawoon di gas fa la kàmb ga mëbëx mu dugg ci biir kàmb ga Ousmane Sonko tiim ko. mu taxaw nag di talal loxo Ousmane Sonko ak ñi ànd ak Ousmane Sonko pour Ousmane Sonko man koo génn ci kàmbu gi mais nag fekk na béy way mbuus waaw Olof Njaay nag da doon wax ne képp ku iñaane sa ndono sa deewin ñaaw Macky Sall deewinam mu ñaaw bi yëpp li ko ko yóbbee ak ñu ko yóbbee xam na leen bu baax mais du Ousmane Sonko ñi ko toppa naan ko Ousmane Sonko terroriste la ñi ànd ak Ousmane Sonko ay rebelle lañ ñi ànd ak Ousmane Sonko ay raykatu nit lañ lu nekk ñu waxal ko ko moom itam muy chargé ay dossier rek dem ba xam ne nag lii ñu koy waxal nii àdduna sépp kenn gëmu ko ci parce que Sénégal kenn mosu fa gis attentat ci ba Macky Sall toog ci réew mi léegi créé nañ ko nag seen benn soi-disant fële ca Dakar benn oto bu fa lakkoon ci ay cocktail molotov ne ay terroristes ñoo dugg ci oto bi taal fa ay cocktail molotov génn fu ne ñu wax ko ci àdduna Antoine Diome wax ko fan la mujj fan la mujj waa léegi man damay wax ne am réew bu demee ba tollu foofu lépp rien que pour jéem a faagagal benn opposant ndax jarati na ko ndax jarati na ko tey jii nii la mag Sall doon def ci ay ñaawteef lépp këpp na ci kawam te lii yëpp nag ay nit yu bari waxoon nañ ko néew nañ ko Macky il faut faire très attention ci décision yi ngay jël nii parce que ñii di la digal naan la defal lii yëpp bu ëllëgee booy amee jafe-jafe bu la Sénégalais yi day sës ci miiru wis bi ne la wóor na yow rek yaa fi ñoom seen kër la ñuy dem tëdd ak seen i njaboot di gundaan daat di lekk seen milliards tey ana Antoine Diome ana Ismaïla Madior Fall ana ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne nii maanaam ñoom ñoo doon chargé dossiers yi nii di jàpp ay détenus politiques di tëj ba gis ngeen fi ne libération mel ni tulleeg màlle ku nekk ñu ngi lay libéré te li gën a dee mooy bu ñu lay libéré doo sax doo jaar sax baar dañuy xëy un bon jour ne la génnal di génn mel lay xar te li ci gën a doy waar mooy jàpp nañ ci façon nit yoo xam ne ay responsable lañ woon fi ne nii Macky Sall toroxal leen bañ ne tot jàpp ay yoo xam ne ay njaboot la ñu yoroon ñii seen i waajur génn nañ àdduna ci seen ginnaaw ñii ñàkk nañ lu ne seen ginnaaw te Macky Sall leen génn rek wàcc leen ci bit noonu ngir lan jàpp na loolu mooy ragg ab deram te Macky Sall li mu yàqal réew mii golo mënu koo yàq ci tolu mango li mu yàq ci ay askan golo mënu koo yàq ci tolu banaana parce que Macky Sall li mu def ci réew mii musiba la balaa la mara day taal yi man damay toog ba yàgg may posé wu ay question est-ce que Macky Sall nekkul ne Sénégal dafa tooñ yàlla tooñ gu màgg goo xam ne xamul yàlla xamul lan la ñuy mbugalee mënut a wàccee malaayika mënut a wàccee lenn lu dul mu wàccee ñu jëm mu jii di Macky Sall pour mu toroxal ñu ray ñu waaye nag loolu yëpp avana gasi nañu sant yàlla te muñ ta xam ne Sénégal dootu dundati lu gën a metti lii ñu Macky Sall teg te Macky Sall jeexal na ndax gis ngeen ni muy saraxoo actuellement nii di Ousmane Sonko xam na ne moom jeex na bu yàgg te jeex na ab jëllam rek la gis fi ne nii bu mbër muy bëri la caxabal nañ ko roof nañ ko galgal dóor nañ ko épirkit nooju nañ ko lu ne def nañ fi ne nii daanu rek ci des daanu rek moo ko desee moo tax fi ne fu ne dana fa wut pour jéem faa jafandu Ousmane Sonko mi nga xam ne nag moom la waxoon mooy nitu fitna démb ne moo tax dëkk bi mënut a am stabilité tey ci moom la bëgg a jaare pour dëkk bi am stabilité te jàpp na ne Ousmane Sonko dafay négocier maa ngi dégg lenn ci ay rek di sos ak yenn journaliste di sos ak wax lu dëgg naan Ousmane Sonko mi ngi négocier ak Macky Sall ci diggante ki nga xam ne mooy Pierre Goudiaby Atepa ak ki nga xam ne mooy Doudou Ndoye ñoom ñaar ñoo fa ànd pour dem di waxtaan ak Ousmane Sonko ngir nu ñu xool na Ousmane Sonko di génne ci kaso bi Ousmane Sonko li mu leen wax lu leer na nee leen man ma négocier ak Macky Sall ma des ci kaso bi pendant vingt ans moo ma gënal ma naan damay négocier wala may dialogue ak Macky Sall te sax balaa dara xew li ma bëgg mooy Macky Sall ñi nga xam ne jàpp na leen. te sama jëmm jii tax muy détenu politique yi na libéré ñëpp ba pare ñu soog a àggale suñu waxtaan. loolu bokk na ci li waral Macky Sall di génne détenu politique yi maanaam ñoo xam ne ay ñoom Jamil Sané ay ñoom euh, ñu baree bari ñoo xam ne tey maanaam liñ leen jiiñoon ci ci ci ci mbirum euh, giraawaal yi kenn xamuñu toll ñëpp Macky Sall mi ngi leen di bàyyi di leen génne ndax jëmmi Ousmane Sonko ji. te Ousmane Sonko moo joxe ordre yooyu. tey jii nag Macky dem na ba xam ne ab jëlam force mu ñaaw moo tax muy xool nu mu ko rafetalee tuuti pour Sénégal yi mën a am xolu yërmande gis nga Macky Sall lii mu def nii bu ko ci kenn sant libération détenus yi bu ko kenn sant bu ko kenn gërëm bu kenn sargal maa ngi dégg nag lenn ci ay journaliste wala lenn ci ay télévision wala lenn ay journaux di wax naan Macky Sall kat li mu def nii geste bu rafet la deful benn geste bu rafet ndax damay dégg ñu naan koo war a tëj boo ko tëjee koo war a tëj boo ko tijjee kenn waru la caa sant te Macky Sall ñi mu jàpp tëj leen ci kaso bi yëpp amul kenn koo xam ne sa place kaso la woon Macky la ñi seen place nekk kaso nee na du ngeen dem kaso ndax man maa leen di aar maa leen di iir moo ñi sàcc suñu fond Covid 19 bi ñu sàcc xaalisu euh, euh, Sénégal yor ay milliards Sénégal Macky la jël alal jooju noonu teg ci concaam ne dama leen di baal bëgg leen a amnistier ba koo jaaree ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko xam na loolu yëpp tey jii nii kenn neexalatu ko ci li nga xam ne mooy moom la bëggoon a def mooy nekk naan day dialogue ko ay day nangam parce que Macky Sall amatul lu muy wax amatul benn légitimité pour naan day wax ak kii que ce parce que dégg ngeen li nga xam ne loolu la ko waa conseil constitutionnel wax nee nañu ko li nga war a def lenn képp la defal le plus rapidement possible balaa la trois avril nga jébbal réew mi ci loxoy keneen parce que à partir de le 3 avril nekkatoo li nga xam ne mooy njiitu réewum Sénégal keneen a koy doon élection yi nag yaay xool noo koy organiser fii le 2 avril mais nu mu gën a gaawee communauté internationale bi ñëpp a ngi ko di ko woo di ko xamal ne defal li nga xam ne moom la Sénégalais yëpp moom la àdduna bépp di xaar ci yow mooy nga organiser ay élection te nga dem foo xam nga jëm fa parce que nekkatoo njiitu réew bu Sénégal fi euh, d'ici le 2 avril kon fi ne nii ñëpp Macky Sall la ñuy xool moom la ñuy déglu moom la ñuy xaar def nay ñaawtee fam nag ba suñ borom toroxal ko dugal ko ca kàmb gam doon gasal ay gor kàmb googu moom jaam bi moo ci dugg moo ca tàbbi moo ca lab tey jii rek soxla na ndimbal te kim mu soxlaan ndimbal mooy kan Ousmane Sonko mi nga xam ne démb ak barki démb amul ñaaw téef bu mu tegul ci kawam amul wax ju bon ju mu tegul ci kawam di ko diaboliser ci këri diine yi fu ne mu dem fa di te Ousmane Sonko de ñëpp xam nañ tey diine gor la géer la garmi la nit ku baax la yi tax nag nit yu bari mënuñu ko bëgg muy ci kilifa aada di ci kilifa diine Ousmane Sonko amul lu ko nit di jaay ba mu saf ko Ousmane Sonko ku ko dàq jaamu yàlla amul ku ko gën a xol amul ku ko gën a jàng diine amul ku ko gën a jàng lii di mbirum àdduna amul kon Ousmane Sonko du neex a bëgg ndax sénégalais dafa soxor soxoruk sénégalais àgg na ci nit ki nga xam ne maanaam bu dutoon ak moom di yow doo ko mën a bëgg te Ousmane Sonko amul lu ko kilifa ak diine di jaay ba mu saf ko wala kilifa ak aada wala keneen ak keneen moo tax lenn ñu bari ci ay nit duñ ko mas bëgg ndax la amul da leen raw ci côté yëpp gën leen a jub xoolal nawle Ousmane Sonko yi moroomi Ousmane Sonko yi mu nekkandoo doon liggéey ñëpp ay milliardaire lañ sauf moom. kon kooku ku ko gën a jub yàlla moo tax loolu la ko yàlla fay loolu xolam boobu la ko yàlla fay te lim daan wax ñu naan Ousmane Sonko day fenn lu mu daan wax ñu naan Ousmane Sonko du nitu jàmm lu mu daan wax ñu naan Ousmane nit nitu fitna la tey jii nii ñëpp xam nañ kenn mooy nitu fitna ki kenn mooy fenkat bi kan mooy nitu musiba gi ñëpp xam nañ ko tey mais kenn du ko wax parce que Sénégal dafa bari naafiq Sénégal dafa bari nit yoo xam duñu wax dëgg Sénégal dafa bari nit ñoo xam dañuy wax ngir doomu aadama mais duñu wax ngir yàlla tey jii nag yàlla leer na leen dëgg man maa ko moom te jox naa ko Ousmane Sonko lam leen foo xam ne Macky Sall du ko ñuy négocier du ko ñuy dialoguer du ko ñuy waxtaanal lépp tey te ngeen seen bët Macky Sall dialogue yu mu fi rek lu mu leen jariñ te Ousmane Sonko du ku bëgg kuy négocier da ngay dem nga wëri fa Sall wala nga wëri Karim Wade wala nga wëri ay Idriss Seck ñooñu ñooñu ñooy négocier mais Ousmane Sonko du koy négocier du koy neexal du koy waye di waye di lu Ousmane Sonko li ko ñoroon mooy procès Sénégal génn ci loxo yii mu nekk tege ci yeneen loxo yu baax te ma Sall ku ne xam na ne dafa dafa suuxal réew mi dafa bekkooral